tey Sénégal amna na bu mag tiis la bo xamné ne dañu yéwo ak mom muy accident bo xamné ne xol ci suñu histoire mel nañu nu suñu gis accident circulation ay auto yu entraîné autant de morts fanweeri nit ak juróom ñent ñak nañ seen bakkan ci accident bi fanweer ak juróom si ñeent ñi bi ñu ñëwee ci l'hôpital la la ñu faatu ah loolu nag démb deer bi ñu ngi wax ñeent fukk benn waaye dañu fekkoon ci morgo hôpital bi ñaari nit ñu génnoon àdduna donc waxtu wi ñuy wax fanweeri nit ak juróom-ñeent ñoo génn àdduna ci accident bii muy accident bu metti ni ni nga xam ne noonu la amee téeméeri nit ak fanweer ak juróom-ñeent ñoo nekkoon ci ñaari oto yi muy limbu dis nyu gis ne nak jotna ñu jël ay matukaay ci oto yi transporter doomu aadama yi ci condition yi ñu leen di transporter ci condition yi ñu joxe permis si at yi nga xamne ñi dawal aussi war nañ ko am parce que boo yebé juroom ñaar fukki nit war nga xam ñi nekk sa ginaaw ay doomu adama lañu ay borom kër lañu ay yaakaaru njaboot lañu ay avenir réew mi la donc loolu dafa laaj maturité dafa laaj taxawaay gis nañu itam ne waxtu wi ñuy daw jaaduwul donc loolu ëllëg bu conseil bi saytoo yooyu yëpp dinañu jël ay dogal yoo xam ni ak ci at yi nga xam ne oto yi am nañ ko màggataay bi loolu yëpp dinañ si jël mesure pour ñu mën a sécuriser mën a assister population yi pour bañ di gis lu mel ni di am bés bu nekk ñi nga xam ne seen i mbokk bàyyee nañ wàññeeku nañu ci accident bi di ñaan yàlla mu xare leen àjjana di ko def ci turu réew mi yëpp di masaw ñi nga xam ne feebar nañu am nañu ay blessé ay blessure ñooñu visité nañu leen euh, takku lim bi takku na lool waaye nag ñu sant yàlla bi hôpital bi nekkee fii ci Kaffrine ndax lu toll ci téeméeri nit am nañu ay gaañu gaañu muy ay blessé te ñoom ñëpp hôpital bi jël na leen en charge ginnaaw kenn ku ñu évacué ministère la sant tam yónnee na na ay docteurs yu mag ay chirurgiens yu jógee Ndakaaru yegg si nañu pour renforcer waaye hôpital bi am na bépp matukaay pour mën a faj blessé yëpp kon loolu jànn sant yàlla mu mel ni ah, kon fajkat yi taxaw nañu ni ñu war a taxawee lépp lu ñu soxla it pour faj leen am na macha allah sapeur pompier gendarmerie nationale administration gouverneur ak ay service am procureur de la république ndax ndëgam ay nit faatu nañu ci accident il faut mu joxe ndigal pour ñu mën a libérer corps yi am na si ñaar fukk yoo xam ne xam nañu ñan lañu ñooñu dinañ leen jot seeni mbokk gouvernement bi dina leen gunge ci mbir moomu ci walu solidarité euh, ginaaw loolu itam gouvernement bi dana taxawal ëllëg ci njiitalu premier ministre conseil interministériel boo xam ne ak ministère des transports ministère de l'intérieur forces armées ak ministère des finances pour ñu xool conditions yi ñuy demee ci transport public ndax Sénégal mënatul bàyyi lii di continuer mënatul wéy oto yi il transport a ne gis ñu mel kon def effort état bi personnel mais également des capacités mais il faut se réjouir de la présence de cet hôpital régional de qui a pu prendre en charge l'intégralité des blessés et ils étaient nombreux et il faut saluer également le dévouement du personnel médical tout comme le procureur de la République de Kaolak avec ses équipes qui, depuis plusieurs nuits, à 4 h du matin, est sur Kafrine. Et au moment où je vous parle, déjà 20 corps ont été, plus de 20 corps, je crois, ont déjà été identifiés et bientôt pourront être remis à leur famille. La difficulté restera l'identification des autres corps, ça se fera au fur et à mesure. Et l'État apportera tout le soutien et toute la solidarité aux familles endeuillées, mais également aux blessés ou à leurs familles pour pouvoir atténuer leurs souffrances. Je salue également les efforts du ministère des Transports terrestres et du ministère de la Solidarité nationale mais surtout saluer aussi les efforts de la commune de Kafrine à travers son maire, le ministre Abdoulaye Seydou et toutes les bonnes volontés qui se sont spontanément présentées à l'hôpital pour apporter leur soutien. Bien sûr, cet accident nous montre qu'il y a des ruptures à opérer pour mettre un terme à cette situation. On ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. Parce qu'autrement, nous allons encore vivre de même drame à l'avenir. L'usure des pneus, l'usure des véhicules, la transformation de véhicules en violation des normes de sécurité doit cesser dans notre pays. Et j'attends du gouvernement qu'il me donne Dès demain, les mesures à prendre, elles seront prises. Nous sommes prêts, bien entendu, en tant qu'État, à accompagner le, secteur des transports pour en partie le renouvellement du parc et la limitation des âges des véhicules de transport commun qui nous viennent de l'étranger. système de transport de passagers. waaye oto duñ ko defar ba pare nga ñëw transformer ko teg ci porte bagage te loolu ki tabax oto bi construire ko boolewu ko si def ay siis si diggante bi loolu da ngay indi danger pour ñu si dugg indi danger même pour ñu ngay daje donc yooyu yëpp mooy dogal yi nga xam ne bëgg naa ëllëg bu ñu ko saytoo ñu mën ko ñu mën a jël dogal yi ginnaaw loolu def naa décret pour def deuil ñetti fan am ñetti fan yoo xamné Sénégal ci dëj lay nekk